oui ah dama gëm ni kon yow rapport bi dafa incriminer l'ancien premier ministre ancienne présidente conseil économique social. lii mu tontu des mooy firnde ni que rapport bi man gisuma ko wóoruma ndax am na. Hmm. damay wax lu ma xam. yoruma ko. bu ma ko yoroon moom ex expliqué la mais tey ci suba journal. bi wax rapport yi man sànq bi ma conseil des ministres dégg naa mu tontu neewul rapport bi amul de.

journal bi ko wax am na fu mu ko teg journaux yi ko wax am na fu ñu ko teg journaliste bu dem wax ay waxi rapport ci nit. man de ku ma tudd ci rapport. man journaliste yi ma tuddoon ci rapport yëpp damaa dem ak. yow yow sëñ bi dinañ ci ñëw ma dinaa damay on va revenir bu yàqante monsieur le ministre mais lii lii mu leer pare. parce que point bu am solo la. li amul njëriñ li li li yanuwul maanaa. mooy yow mënoo xëy di di yuuxu rek ci rapportu jàmbur ndekete yow. ak li ñuy wax yépp IGE audité na la ba nga wax ba ñu laaj la bañ lay tuumaal ci ab rapport. te yow yaay xëy di yu ak bind ay conseil constitutionnel non déedéet. lu tax mu génn mu génn période bii ci période bii. parce que Sampal Ngandam bëgg na nekk président bu Sénégal présidente bu Sénégal. Hmm? parce que peut-être bokkatu leen gis-gis. déedéet ak ak bokkatu gis-gis ak yéen. man man nee naa la gisuma rapport. oui nee naa la gisuma rapport. mais publication bi ci période bii monsieur le ministre. publication bi mais parce que moom ci boppam ndaw si.

mais moom lu mu bind dafa leer ah. lan la wax lu mu bind leer na nee na moom. Ah. ni mu yore woon conseil économique social. ah déedéet léegi kay du kenn ku ko yore. léegi kay léegi kay. amul ku ko yor bu baax comme ni mu ko yore woon. na en tout cas wax na ko en tout cas rapport. liir nga e. ko oui man liiruma liiruma liiruma rapport UG e encore. une fois rapport mais moom li mu tontu. li mu tontu yarul maanaam kuñ jiiñ. dara nga gëm ci sa biir xol ne ko amul man li man man li ñu ko jiññee buñ mako ko du ma tontu li mu tontu ni wa ah, dedet yanul mana mais li yanul mana monsieur le ministre mais li tax yanul mana moy neewul amul sama japp jàpp nga ne yéen instant bi détournement d'objectif ngeen def oui mais mom nee waxul ni ko rapport amul rapport tay bu amé xam nga rapport mom dañuy bind 20 pages wala 1000 pages waye bo demee ci ñetti dernier page mo lay résumé mo lay wax ki togn mo lay wax ki toñul mo lay wax ki ñu war IGE du ay caaxaan bu fekkone ni que liñu bu fekke ni que liñu wax amul mom dafa wara wax ni que rapportu IGE jappuma mais waxul loolu waxul loolu de li wax moy non nan lañ dem ci mbedd mi ñu wo ñiko jité won ak ñiko mësa jité waxul ni que rapport ya ngi surage pour yow mais bien sûr amul lu ci laxasu parce que bu amul won tay citation direct devant le tribunal moy am waxul waxul loolu ah déet tey jii yow tey sëñ bi du ma ñëwee ni la baaba Ndiaye yaa jël ñetti télé ITV yi fekk yow yow xamoo ñetti télé ITV yi fan la nekk wax dëgg yàlla bu ñu leen ñetti tele balaa muy ñeenteel wala muy wax dara nga ni ko saa waaye li may ji nii du mën nañ dem ca yoon. mais déedéet nan leen dem wooye ñi fi nekkoon ay loolu foo ko dégg luubal am na léegi nag munoo nekk ci loolu ba pare bëgg a poñe nit ñi nekk ci leneen di xam ba ay nit nit ñi dafay sonal boppam. ah bon ah oui mais nan lay sonalee boppam elle perd son ah, temps xanaa ngi soog a xam monsieur le ministre oui nekk na fi de liste coalition benn bokk Yakara. Ah. non xanaa loolu yàggul déedéet <laughs> oui yàggul ah parce que démb la xanaa ñeneen ñi mais man bu dee man sama bopp hmm. man lui, muy def nii bettu ma bettu la déedéet ba mu premier ministre ñu def ak moom ñeenti hmm. Là, nous ñu qui, woon kii fa jëm ak ñun ngor du fa am dal du fa am dëgg du fa am ndax lan foo ko tegoon loolu. fi ma ko tegoon ci li ci lim daan wax mooy sol mbubu boo yelloowul sol mbubu boo moomul ak jikkoo loo xam ni du séef mooy la mu njëkk a def mooy wax ni que dafa dafa sonn ci yëfi parti ca fa yàlla xam na ni que ba ñuy sumb suñu xeex bokku ci ba ñuy teg suñuy pexe bokku ci ca cappaandal ga la ñëw ca ba muy ñëw di bokk ci ñun lam ñu doon defal dañ ko ko doon fay

nga ñëw parce que xañ nañ le président assemblée nationale nga ni yaa imposture la ma nekkoon directeur de cabinet ma nekkoon directeur de campagne. mais Macky Sall nekkoon ko musu ko nekk. Macky Sall musul am directeur de campagne muy 2012 muy 2019 amul élection bu ñu mës organiser à part législative yi passé ci la wax ni que Cheikh Kanté mooy yor équivalent au directeur de campagne. d'accord chef de cabinet ou candidat bi la woon toog ci ginnaaw oto bi. oto yu bakkane ay tundraax lañ jëndoon mu toog ci ginnaaw yor carnet bi président war nga recevoir kii président war nga recevoir boobu ba muy def loolu ñun ñi ngi rey suñu bopp di mobiliser di monter ay UVO di monter ay comité di mobiliser sénégalais pour ñu jàpp suñu projet yoonu yokkute ci draft la ko liir ponctuation sax defu ko ci numéroté page sax defu ko ci. mais li ngay wax ni monsieur ak moom lu mu wax. mais moom mooy mooy mooy li ma la wax moo tax man la imposture léegi nag yow yow nga ba nga génn ci ñun ci loolu lépp tay nga dem lëngoog ay ño xamni wax deug yalla barki dem yow lang nga leen yàq mi ngi dege ni mi tege fi après ñew bëgg ñu sonal ci ay waxu transparence bonne gouvernance daga tay yow ci sa bop am am rapport IGE bu ñu bu ñuy wax ca wéddi wo nga def loolu yanu na mana loolu diine nangu ko ngor nangu ko li mu nekk di def ni yefi bopam la beneen rapport boo fi wax nag. wax deug yalla am nañ tontu. est-ce que pare ngeen pour Aminata Touré djuk ci mom par rapport ak assemblée nationale bala ñoo ñëw ci yeneen question yi. taxawaayam parce que li wax ni yëpp ci taxawayam kon day wone yeen pratiquement dooleel ngeen ko dooleel ngeen ci mom ci coalition Benno Bokk yakar non la suite c'est quoi lan mooy taxawaay mais mais la suite mom moy mom ci liste la demee ànd ak ay nawle. yoon ni boo bàyyee da ngay dem mais nga tok fee bëgg a dugg naxanteeg ay lolu méngoowul ak dayo bi mu bëgg. bi mu bëgg a wane moom moo waroon am ngoru boo àndatul ak nit man de bu ma àndatul ak yow lépp lu ma am ci sa wet dama koy summi joxe dem wóolu yàlla wóolu samay xalaat wóolu samay kii dem defi mais ku fi nekk fii di def leneen di tëbëka dal di bind ay lettres di def activisme politique kooku sa bopp ngay nax. d'accord monsieur le ministre euh, yàgg nañ la tudd. ci rapport Prodac. ci euh, Prodac. Mm-hmm. ni da nga détourné vingt neuf milliards. ci xaalisu Sénégal. Mm-hmm. mu jur fi coow lu rëy. amoon nga ci taxawaay boo ci amee ba tout sama jiital Pastef